kay bii di Le Quotidien moo joxe xibaar bi ganna ba mu ne président Macky Sall joxoon instruction gouvernement bi ngir ñu Ben di préparer benn projet d'amnistie ngir rek lu ñeel wàllum événement yi nga xam ne ñoo amoon mars 2021 ak juin 2023 objectif bi bu ñu sukkandikoo ba tey ci kay bii di Le Quotidien moo di rek fexe ba permettre nit ñu bëri ñi nga xam ne ñoo ci biir kaso yi ngir ñu daldi di mën a am ab liberté provisoire mën a génn bu ñu sukkandikoo ba tey ci kay bii di Le Quotidien njiitu réew mi Macky Sall daal waroon na présenté lii di idée bi gannaaw conseil des ministres bu ñu doon amal ba suk àllarba juróom-ñaari fan weeru février waaye nag daf ci amoon ay ministres yoo xam ne kon dañoo bëggoon gën a am leeraange jëm ci fànn boobee loole moo daal di woon waral ñu daal di repousser li nga xam ne moom moo di projet bi ngir bu ko defee président Macky Sall gën leen mën a expliquer li nga xam ne moom moo di yéene bi mu ci am ngir mën a daal di gën a convaincre ñi di acteurs yi maanaam ñoom ministres yi idée bi nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci yéene kaay bi di le moo di texte boo xam ne rek dañoo bëggan daal di gën a wonale askan wi ak wàllum esprit de pardon ak itam lu jëm ci wàllum réconciliation maanaam réeroo gi dox diggante nguur yeeg askan wi loole ñu daal di ko tegee boor ci jamono joo xam ne dañoo war a xool mbooleem rek li nga xam ne moom mooy fitna ñu daal di ko tegee ginnaaw ak itam loo xam ne jafe-jafe la wala mer la jëm ci askan wi rek ñu daal di fexe ba loolee ñu mën koo saafara ba su ko defee lii di élection présidentielle yi ñu war a amal ci réewum Sénégal ñu mën koo amal ci anam goo xam ne jàmm kaaraange ak dal gu mot la lanu ci nemmeeku